ah loolu nag di liggéey sëñ Tuubaa bu rëy rëy sëñ Modou Xabaan ñu ngi ko fekk fii nag ci bisub Jaalibatul Maraaxib di bisub xasida mm-hmm. ci la lépp nekk mm-hmm. yaakaar naa ñëw ngeen ci barab boo leen war a ñëw mm-hmm. yéen kenn ëpp leen solo ci liggéey bi sëñ Modou Xabaan ana yan kàddu ngay jàll santaat sëriñ Saliou bu baax di nuyu mbokk jullit yëpp ak mbokk taalibe yëpp bis bii damaa fàttali daaw daaw wóor na sëriñ tubaa man rek maa ñëwoon ndax booba dala xel gi kenn ku ma nangoo topp ko dalal xel gi damaa dikkal Serigne Touba di ma ko liggéeyloo ci saayir ak ci baatin baatin bi nag du fi xaj pour ñu waxtaane ko waaye saayir si mooy sëñ Mountakha joxaat na ma ci ndigal bi ma ko joxe ba pare ma ne ko dalal xel bu sëñ Saliou da laa xalaatoon tudde ko ko mu ne ma man noonu laa ko tuddee te moom mooy fii Serigne Touba daan ma ciy tegal ne ma Modou Xabaan ma ne Mbàkke mu ne ma liggéey bi dana yegg fépp tey jii fu ni ci àdduna nit ñaa ngi fay seetaan vidéo yi mhm. ni ñu taxawoo ñu wér di xel mhm. di leen sang mhm. di leen wat di leen solli yére di leen faj di leen jàppale yan projet ngeen am yan projet ngeen am ci wàllu tabax kër wala wut barab boo xam ne dañ leen fay dajale ñan ngeen ci woo waaw xam nga Serigne Touba bu tànneeb liggéey jox ko nit te ba mu ko koy jox yurut ay milliards yurut ay millions yurut dara lam si jublu mooy liggéey ba sàmm ba ñu dugg ci seytaane liggéey Serigne Touba am na woote waaye amul xaare mm-hmm. te man liggéey bii dama cee bàyyee woote ndax ñi may woo mm-hmm. musuma gis ku ma ci wuy waaye ñi ma wul ñoo may wuy jërëjëf kon sëñ Touba la eh, ñoo ngi gërëm mm-hmm. non stress bu nekk itaali jërëjëf dañoo jël engagement tabaxal ma hôpital ba mu yegg nee nañ ma trois cent mille ni ma luyal kër gu la neex ñu koy fayaale ba keroog hôpital bi di pare jërëjëf jërëjëf ànd koog soxna May mu sëriñ Muntaxa Mbàkke waaw waaw jërëjëf jërëjëf sëñ Modou Xabaan kon xam naa ne waxtu bi moo xat waaye ku dégg sab soññe ak dégg sab woote rek li ci des lépp dina ko xam wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. waaw numéro bi numéro téléphone bi jàlle ko. waaw numéro bi 77. waaw 137. 47 24. waaw waaw tigo bi waaw 653. waaw